ولطف بالبرايا إذ براهم وبر وروح أرواح أهل الصلاح براح الفلاح وصر واطلع على ضمير من نوى وصر من أسر قدر الأشياء فقد الخير وقد الشر أمات وأحيا وأفقر وأغنى ونفع وضر جف القلم بتقديري فمضى الأمر واستقر أحمده على إنعام كلما احتلب در وأقر بوحدانيته عن دليل قد استقر وصلي على النبي المصطفى الذي عمت رسالته البحر والبر وعلى أبي بكر الذي أنفق حتى تحلل وسر وعلى سيدنا عمر الزاهد فما غره ما غر وعلى عثمان الذي ارتفع بالكرم فبر وأبر وعلى علي الذي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 lottal ko mbooleem mbindéefam yi ci diggante nit ak jinne waaye côté boo ca dem rek fekk alquran lottale ca lottale na waxoon naa la ko ci al ijaasul wiqaayiyu wa tibbul wiqaayiyu lottale mbindéef yëpp ci protection maanaam lu ñuy tuddee xoddeeku bala ngaa lakkale mais du la bàyyi ba ngay lakkale mu lay doola sant ngay xoddeeku déedéet téere ca man ñëpp ci wàllu woowa moo tax xoddeeku googu bala ngaa lakkale muy nga protéger sa bopp ci sa wàllu santé balaa feebar a ñëw moo taxoon mu yëg ne kàmbi feebar yépp mu ngi soqeekoo ci biir bu fees yonent bi daana wax ne ndab lu fees di yiw ba mooy ndabal biir biir bu feesee rekk jural borom wéradi dana ko jural wéradég saahir jural ko wéradég baatin ndax dafay rey xol ba looloo taxoon lislaam nag indi protection bu ñu tuddee koor nga lekk fukki weer ak benn mu ne boo doon oto daal sa huile bi war naa dee kaay ñi vidé ko mu ne nag vidé ko ci wenn weeru lëmm nga wàññi sa lekk yi fi fajar xare ba jant bi sox ngay door a saña lekk motax mu yonal ko comme nim ko yoonale woon ci xeet jitu yëpp médicament di kamala bo xamné protection bu mag la mu defaron ci xeet jitu ya defar ñu ci ñun xeet wu mujj wi ki ya ayyuha allazina amunu kutiba alaykumus siyam kama kutiba allazina min qablikum laallakum tattaqun koku ma nga ca suratul baqara aaya 183 ba ci aaya 184 bi alquran tuddee koor dañoo foogoon ne caaxaan rekk la waaye li koor di participer ci wàllu protection ak li mu mën a ci wàllu santé ku ko xamoon sa dund bi lépp lépp lépp da ngay far rekk di ko xoor demal nga seeti tabaarakallaahu benn docteur bu mag nekk ci Europe ñu koy tuddee suway sariyu benn médecin la bu nekk Europe mooy wax ne inna faidata sawmi fi l ilaaji tafuuqu marratin wa marratin istixdaam al adwiyati al muxtalifati mu ne njariñ li nekk ci xoor ci mën a faj jàngoro yu nekkoom ci yaramu nit ki moo gën a kawe ay yooni yooni yoon a ah, médicament yiñ lay bindal yu wuutee nga di ko naan ñaar suba ñaar ngoon benn bëccëg benn midi yooyu yëpp médicament koor ko gën a foor yonent bi daanaka wax ne suumu tasixu xoor leen rek ngeen wér. benn borom xam-xam bu ñuy tuddee Bunyaaminu ab ustaas la ci jaamiatu musko dafa ne bu ñu fuglu woon nit ki ci ak jege danañu fekk daal bakkanam dafay sib ñam di ko dàq ci yenn ci jamono yi. rawatina bu feebaree boo ko joxee ñam du ko nangu yonent bi daana wax na bu leen forcer seen malade yi ngeen leen di jox ñam yi di ko réciter ngeen koy forcer déedéet yàllaa leen di lexal te fekk yëgu leen ko kon ba nga feebaree rek commencé nga gedd ñam yi mu am beneen caf nga gu wuteeg gam safoon ci sa gémmañ commencé nga gedd ndox mi mu am beneen caf nga gu wuteeg gam doon saf ci sa gémmañ foofa yàllaa ngi lay xoorloo mën a dindi ci yow jàngoro yu bëri mën a ci yow ak wér gu bëri waaye docteur Helba ca France wax na ko ci année mille neuf cent moom dafa daan saafara faj ay malaatam ci worloo leen ci ab diir mu jigi daal malaatam yu bëri dafa leen di sant ñuy xoor yàlla di ko ci jox résultat boo xam ne joxut ko ko woon ci bam leen di jox ay médicament ñu di ko naan ndeke loolu lépp dafa dëggal li yàlla ne wa am tasuumu xayrun lakum in kuntum taxlamuun seen ak koor dañu gën seen ak ñàkk koor ndeem xam ko ba mu demee moom docteur boobu ma wax la ah ci la Euh, benn borom xam-xam docteur Wataraman ci benn muktamar ak saamin boo xam ne dañ ko xoote xoon ci la wax taqoog piis néew looy lekk soril ko euh, jàngoro yi mën a fekk ci sa biir bi yam yam mën a fekk ci sa biir bi kenn xamul ni mu ni mu ni mu toll quarante et ci la tabaarakallaahu euh, ku ñuy tuddee euh, euh, maanaam buux na jar génnee ab téere boo xam ne da koo def ci njariñal koor te moom sax du jullit waaye njëriñu rëy yi nekk ci koor ak jàngoro yu mag yi nga xam ne mi koy faj dañu demate ba quinzième bi ci la maanaam lu di fu maanaam génnee mom timit wax koor li muy mëna fajj ci ay jàngoro fekk mom dafa feebar da doon rek mu jigi bu taqo di xoor rek yëgatul dara ci yaramam dem na ba xam téeméeri ha manal bopam lepp gannaaw si gëna la téré tuddé ko man yaqul qalilan yu tawilan ku lekk lu neew da nga gudd fan da nga fi yag dal ndeketoo loolu lépp mu foog lu bees la fekk yàlla waxoon na bu yàgg ne wa kuloo wasrabu mais wala tusrifu lekk leen naan leen mais bu leen yàq yàq nag mooy lekk lu xëpp rek ak naan lu xëpp soo ko defee rek dugg nga ci buntab yàq kon gis nga protection bi yàlla jël ci wàllu ñam ci koor ak li mën a jural ki koy def ci wàllu santé kon moom dafay xoddeeku balaa lakkale waaye xoolee protection bi mu jël ni sa soxna bu yoree reegal bul joteeg moom médecine dem ba avancé ne boo demee ba joteeg moom mën nga saa jële ay infection yoo xam ne mën na laa yóbbu àllaaxira kañ la yàlla waxoon wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adan faatasilu nisaa fi lmahidi wala taqrabuhunna xatta yatuhurna fa ida tataharna fatuhunna min haythu amarakum llahu inna laa yuhibbu tawaabiin wa yuhibbul mutatahhiriin suratu baqara aaya deux cent vingt-deux wala loolu waaye nag sa soxna wéraree gar rek foo toll di ànd ak moom jëlee ci ay infection yoo xam ne yaa ngi koy jëlee ci moom bàyyi ko ci moom mën na laa andil feebar boo xam ne doo xam foo ci bëgg moom waaye xool alxuraan ak protection ba muy taxaw di xaraamal médd xaraamal deret xaraamal yàpp mbaam xuux xaraamal gàtt boo xam ne dafa xerandiku ba dee wala xegg ci état boo xam ne boo rendee mu dee boo rendee mu dee ndax maqaatilul xam sa nuyu na ko wala gàtt bu ñu sadd aw xet muy mawquufatu xoolal loolu ba ko waxal Quran di wax mu jigi médecine dem na ba avancé ñi nga xam ne duñu jullit sax dañooy tere ñu lekk mëdd ndax dañuy wax ne gàtt bi feeg mi ngi dund jàngoro ji mooy microbe yi day xeex ak jëmm ja jëmm ji day xeex ak microbe yi duñ ko mënal dara waaye bu xasee dee rek microbe yi yëpp dañuy mujj mag jëmm ja boo ko lekkee nag microbe yooyu ci sa jëmm ji lay des xoola kañ la yàlla waxoon xurimat aleykumul maytatu wa damu wa laxmul xinsiiri wa maa uhilla li gayrillaahi bi wa munxaniqatu wal mawquusatu wal mutaradiyatu wal natiixatu wa maa akala sabro إلا ما زكيتم وما ذبي على النسب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوه واخشوني كان لهون واي جيس نكو مو جيغي نك لان جام با جيس ني عربي دنج دان ديس ياب وين جينا سوب تي مو ياب و ميد دان واخ كاي لي يالا مو غنا باخ غنا ام من ريال سون بوب لولن دان وكان العرب في الجاهليه يمتدحون الميتة ويفضلونها على ما يذبح فيقولون ما أماته الله خير مما أمتناه يا لنا والله ولكن الله تعالى جاء بتحريم أكل الميتة صراحة في القرآن كي حرمت عليكم الميتة واجس له تبارك الله médecine dem di avancé ne gàtt bi feeg mu ngi dund jëmm ja dafay xeex ak microbe ya ca ne dund ga mooy xeex ak moom bu xasee dee xam benn une heure de temps jëm ba muy xamee juróom juróom juróomi waxtu rek microbe yëpp mujj na mu taxaw ba ba ba ba ba ba jëmm ja la ca nekk ci yàpp yëpp soo ko lekkee rek. mu des ki sa jëmm ji yóbbu la àllaaxira loolu tey ñoom ñu juhut jullit seen xam-xam dem na ba prouver loola ba ñoom dañuy mujj di tere seen malade yi bu ñu lekk mbedd moo tax gis nga yàlla ba mu ko xaraabalee boo demee Europe ah, moo tax waa jee wax docteur Jules ah, ah, Hanifry mu mu ne muy muy muy larson mu ne inal qawaaniina xendana fi Europa a tuxarrimu jamiica anwaa'il maytati moo ko wax intaha aklu maytati indahum fa ma ahadun yaakuluha Europe gi yëpp dañuy tere seen loi dafay tere lekk médd moo tax Europe gi yëpp xamul kenn ku fa ñemee lekk médd ku ko ku ko def état da nga xam ak da nga xam ak état ci yoon xoolal lii lañ lañ ko lañ lañ ko waxoon te xoolal bi ko lislaam xaraamale léegi xam la ca nekk ëpp na fukki seekal ak ñeent ñoom ñu dem ba bu yàggu nañ doon trouver loola euh, tere seen nit ñëpp population yi bu kenn ci ñoom di lekk mbëdd waaye tamit deret ba yàlla waxee waruma ko maytutu wa damm la wax waaye ñoom tamit dem nañ ba xaraamal lekk jël deret yoo xam ne dafa kuufu nga di ko utiliser docteur Larson wax na ko euh, mu mu tere na ko wax na ne euh, maanaam wa damm mu wa damm wa damm muharramun indakum qaala laa nahnu maa nasaalu naakulu damma waaye gannaaw si gi nag bañ xamee loolu lañ mujj jël deret ñu nekk loo xam ne dañ leen koo tere euh, ci seen loi kenn amul droit dafa utiliser deret du ko jëfandikoo yàpp mbaam xuux tamit la ci yàlla teg kañ la ko xaraamaloon ci xurimat aleykum maytatu wa dam wal lahmul xinsiiri eh, loolu bu yàgg yàgg yàgg yàgg la waaye mujj gi lañ dem ba gis ne mbaam xuux làmmeñam wa dafa am ay sax yu tuuti xam ne ay microbe jàppam itu dafa xamé ay sax yu ndaw yu ca nek do togg togg togg bu dé lu korob la ca boko lekké rek da fay am ak jeexital ci fay siddit am jeexital ci sa xol bi moo tax lekk katam ba ko foko fek du màggatee tank mu japp ci di rek ray la kon yooyu yëpp dem nañ ba trouver ko mujj a ah, ñu dëgël bop ñu rek ñoo dess di lek yapp mbam ko làmmiñ wa nag moo gën a mom mom mom moom moom moo gaaw ci toroxal nit kon nag gis nga ko tabaarakallaahu kenn du yàlla tabaarakallaahu ci xoddeeku bala ngaa lakkale kon gis nga ko tamit gàtt boo xam ne dafa xerandiku kañ la ko alquran waxoon wal mun xaniqatu kañ la kenn xamul kañ la waaye boo demee Sandaaniyu wax na ko mu ne docteur Larson dafa tere ñuy lekk yàpp boo xam ne dafa xarandiku ba borom dee ñu ne loolu dafay joxe ay jàngoro boo demee tey ci euh, loi bi nga xam ne moo nekk Danemark dafay xaraamal ci ñoom ñu ne bu kenn ci ñoom di lekk gàpp boo xam ne dafa xarandiku moo tax loi Danemark dafa wax ne al yu xarrimu akkalu maanaam laxmil euh, akkalu yamuutu xana xam loolu ñoom mujj nañ ko nangu te xoolal kañ la ko alquran waxoon kenn xamul kañ la loolu tamit lañ jëlee seen luwaay gàtt boo xam dañ koo def mawquufa sadd ko aw xet wala ñu ko mën a sànni mu jaaree ca dee kenn du ko lekk natiixa boo xam ne dafa daanu ci teraas wala ñu ndëkk ko kenn du ko du ko lekk te yi la yëpp di ko alquran di wax kenn xamul kañ la xool xoolal tamit jëlal protection bëgg sa santé mu xaraamal ci yow sàngara dem nañ ba gëstu gis feebar yi sàngara def ci nit ki te mën na ko jox cancer gis nga corona bi sax ki mu gën a ay xam ne dafa ñëw rek doggali la mooy ki mu fekkoon ngay naan sàngara mbaa ngay tux cigarette kañ la yàlla waxoon yaay walis na amono innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijisun min amali cheytaani fajtanibu laalakum tuflihuna kañ la xoon waxumal na yeneen yàq yi muy def innamaa yuridu cheytaanu an yuqia baynakum adaawal baxdaa fil xamri wal maysiri wa yasuddukum an zikrillahi wa an salaati fa antum muntahuna kenn xamul kañ la moo tax Omar moom ku ñor la dafa ne sàngara même bu xaraamutoon man du ma ko naan man munu maa naan luy naan luy naan sama xel mi xoolal tey sàngara su mun xaatil la tooke la guy raye gu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ñoom ñëpp dem nañ ba xam ko ci fépp France Italie Espagne Amérique fépp foo ca dem seen médecin dañu recommandé ne nañ ñëpp di bàyyi sàngara moo gën a gaaw ci toroxal nit ki moo tax jigi corona bi xaw na leen a jeexal ñu banque di sàngara ya waaye xoolal mbiram karta li mu mën a yàq ci économique li mu mën a bijj ci ak nooneel li mu mën a bijj ci ak mbañeel li mu mën a faat ci ay bakkan kañ la ko yàlla xaraamaloon innamal xamra nag da wal maysir kañ kon kenn du yàlla li ñuy jëlal protection bam naan yaa yaa bani aadama xuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu laa yuhibbul musrifina waaye waaye jël seen matukaay set wecc boole ko laab ci yére yi ngeen sol ci seen yaram yi bala ngeen a dem ca jàkka ya moo bi jullit ñi rek ñoo ko jaaxal julli ñi ci ñu ci gën a mucc de ñoo xam ne fu ñu toll ñu ci taqoo jàpp juróomi yoon ci bis bi boole ko di sangu di sol yére yu set sol yére yu laab xalaa kulli xaal ñooña dëgg-dëgg ñoo gën a tëg corona bi nag donte de mbër la moo xam ne mu naqari tëdda waaye ah, tabaarakallaahu jullit ña ñoo ci gën a mucc waaye gis nga ko tamit protection ya tax mu xaraamal njaalo ne waaye waxuma sax def gi waaye bu leen ko jege wala taqrabu zina innahu kaana fahishatan wa saa sabilan te xam nga njaalo la ca mën ci ay jàngoro pay yoo xam ne da ko koy jox mbaa mu jox la ko ndax comme koo dajeeg ko moom moom ku mu dajeeg seq ko ko mu bàyyi ca feebar nga jël ko jox ko keneen ñaataa ci jaaree dee amee ci sida ñii am na ci yeneen xeeti yenn yeneen xeeti jàngoro yoo xamee ni kenn xamul nu mu toll kon nag euh, ku mucc ci sida mucc ci sida képp ku takkoo sida mënoo fexe ba mucc ci euh, maanaam euh, zina ku ko takkoo mënoo ñàkk am sida kon yi la yëpp lislaam mi koy jël tabaarakallaahu di ko jàngale ci suñ matukaay yi yi bu baax a baax a baax koor ñëw gis nga ko bala ngaa julli mu ne la soccul sa gémmiñ gi set wecc du amati benn xet waxtu jot na demal nga xaji nga dem di wër kaaba ga dox boobu entraînement bi ni muy def ci yow baagante safa ak marwa jàllar bi ku dem fële ca amaakinal muqaddasa ya ca minan ca arafa ca mustalifa foofa da nga ñaq ba tooy xet gres gi nekkoon ci yow yëpp wàññeeku bëri ku feebaroon ku duggee ci koor gi balaa jeex feebar yu sayul ñu ci yaramam yépp dafay dañ bari na ku feebaroon dem màkkati naan nu may matalee aj ji ba muy jib si yëgatu dara lu dul jàmm kon li tax yàlla ne wa azin bi nnaasi bil hajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiqin kon yooyu yëpp lislaam mi koy wax waaye tamit protection moo tax mu lay digal ngay naafi la guddi booy naafi la guddi la nga cay jëlee ci wér kenn xamut ni mu américains yi sax boo demee ca waa Amérique seen médecins yi dañuy wax ne taxawaay bu yàgg mën naa saafara lu bëri ci ay jàngoro ñu ngi trouvé loolu mille neuf cent quatre-vingt-treize waaw kay ba kañ la yonent bi waxoon ne alaykum bi qiyaamil layli fa innahu da'bu saalihiina qablakum wa qurbatun ila llahi wa manhatun anil ismi wa takfirun li sayyi'aati wa matradatun liddaa'i min al jasad kañ la ko yonent bi waxoon. léeg-léeg naafila guddi mooy baax ak gaa yu baax ya ya leen jiitu woon dafay jegeel jaam bi ci yàlla da koy tere muy dikkee bàkkaar yi dana tafaara ay ñaawteefam dana ko dàqal xeeti jàngoro yu don yu nekk ci yaramam kon naa fi la guddi rek wala boobu protection boo xam ne yonent bi tabaarakallaahu waxoon na ko tabam koy wax tabaarakallaahu bu yàgg yàgg la waxuma la nag njëriñ li nekk ci julli rek taxawaay baak ba nga taxawee mu defar sa tànk yi ak sa sa ndigg yi nga rukkoo noona nga taxaw si su jootaat yooyu ay démonstration la yoo xam ni nii la muy def ci yow ak lam cay bàyyi boo ko xamoon dootoo bàyyeeti benn waxtu julli bu jotee rek nga dem defi ko waxuma la nag la la ca yàllay fay ëllëg tabaarakallaahu waaye gis nga ko tamit ba jooy sax jullit daal daram pertut nga xam naqar bëgg yàlla sopp ko tuur say ronkañ yooya rek sotteeku bu doon xañ yooyu rek la ca nekk ci njëriñal zahir waxuma la njëriñal baatin la kenn xamut ni mu toll ndax bukkaa neama la waaw docteur Adil Assaafi wax na ko mu ne al bukaa huwa niamatu min allahi li annahu asdaqu tacbirin an il masaarici an il masaarici al insaniyati fa tiflu sagir maanaam yabkii fa tulabba xaajatuhu mu ne xam nga jooy xéewal gu mag la moo gën a dëggal feeñal li nekk ci nit ki ngay xool xale bi dafay am problème rek mu jooy ñu ne dafa xiif wala ñu ne ah dafa mar dafa yàq boppam foofa lañ koy la mu soxla yëpp ñu daaw defal ko te lu ko jox mooy ay jooy kon nag rawatina jooy yi koo xam ne mën naa wax soxlaam yooyu yëpp la ci nekk ci njëriñ kenn dafa xam ñu toll moo tax bu jooy dafa bëri njëriñ jooy dana sos maanaam ak sawaraat ci sa yaram dana dàq ay diis diis yu newoon ci sa yaram dana soril ay naqar yi nga xam ne yaa ngi ko doon dund yooye boo jooyee rek na ndeysaan bu jooyee jeexee rek nga mujj fàttewaat ko moo tax kon jooyu xale sax jarta xeeb lislaam daal dëgg dëgg dëgg diiney xéewal la lislaam daal diiney naataange la lislaam daal diiney njariñ la waaye téeréb yàlla bii di alquran xam bu yéene yëpp dëgg dëgg dëgg dëgg neexut ba neexut waaye daal ñun mënuñoo fay yàlla li ñu ci xéewal dafa bëri bëri goo xam ne wa in ta'uddu ni'matallaahi laa tuxsuha xéewal yi nag ñaar la xéewal ak bokkaate gi ak xéewal yi nga xam ne yow kenn rek ko bokk yow kenn rek yaa ko moom xéewal ak bokkaate gi mooy suuf si ngay dund jant bi tiim la naaj wi sedd bi ngalaw li yooyu yëpp ak bokkaate la waaye xéewal gi nga xam ne yow rek ko moom sutura suñu naroon a xawee ko yàlla muural la ko ay naqar yu xamoon ci yow yàlla fajal la ko ay jafe-jafe bu taxawoon gane si la yàlla dundal la ko yëpp koo ko waxut ko xam yooya xéewal la xam ne yow kenn yaa ko daataarloo koo ko waxut xamu ko su boobaa nag yooya xéewal la ñu yàlla di wax ne wa in taxuddu ni'matallahi la tuxsuuha kon nag yàlla nañu yàlla fayal boppam maa ngi ñaax sama bopp di ñaax mbooleem jullit ñi nañ gën a fonk téereb yàlla bii nga xam ne bàyyiwul dara dara dara dara dara amul lenn luy jëriñ doomu aadama lu dul ba yàlla indi na ko ci téereem bi digale ko xamul lenn lu cay lor doomu aadama ba yàlla indi na ko bi soril ko nit ñi kon alquran daal mooy dostoru jullit ñi moy constitution bo xamne bu ci jullit ñëpp tënkoo rek xam jàmmi haduna xam tamit ëlëk jàmmi halaqira waye moy téré bo xamne ku ko wan gannaaw do xamati jàmm mukk mom la alquran ne fa man ittabaa hudaya fala yadillu wala yashqa waye wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan wa nahshuruhu yawm alqiyamati ama yàlla neena sama téré bi képp ku ko top sama njub li wallahi dootoo sànkooti ci àdduna laa yaddilu fi dunya waaye wala yasqa fi l axirati texee dee la ci àlaxira téeréb yàlla bi mooy tedd yàlla bi mooy seen ak màgg téeréb yàlla bi mooy seen koporfoor ku ko sori torox ku ko jege am jàmm am sutura am naataange da ca imaamu Aliyu waxoon jële ko ca yonantu ba pirmisi yu indi ko doy na Aliyu defa ne woon yonantoo ñu woo ne sa takkoonu fitanun ka qata'i laylil muslim daana fi naa ngi ñëw joo xam ne dana mel ni dogitu guddi ci lëndëm lëndëm turis ñu ne ko waaw yaa rasulallaahi wa mal maxruju minha lan moomu ca mën a génnee mu ne kitaaballah téeréb yàlla bi rek fiihi naba'u man qablakum solo yi ñeneen jiitu woon mi ngi ci wa xabaru man baax ba'dukum xibaaru ñu leen féete woon gannaaw ñëpp a ngi ci xukumu maa baynakum su ngeen amee projet jotee taxaw na pour xatte leen xatte boo xam ne kenn du ñaan appel wal faslu laysa bil hasli dëgg la ju wér di teqale waaye du wut ay mbóosóor man tarakahu min jabbaarin qasamahu laa ku ko bàyyi ngir mbëru yàlla toroxal la wa man ibtaxal hadiya fii xayrihi addalahu ku sàkku njub ci lu dul téerab yàlla bi yàlla sànq la wa hablullahi almatin mooy buum yàlla gu dëgër ga wa nuuruhul mubiin mooy leeram gu bir ga wa zikrul hakiim mooy jàng talam gu xereña ga wa huwa siraatul mustaqim mooy yoon wu jub nga xam ne ku ko topp doo torox waaye tim moom du ànd ak bànneex yi mukk làmmee ñi mun koo waaye ànd ak xalaat bi mënuñoo mënuñoo mënuñoo xajji di wuti ay yoon ba ko fi waaye tamit borom xam-xam yi duñ ca regg waaye téere la boo xam ne ñu baax ñu duñ ca yokkat téere la boo xam ne bëri loo koy jàng du tax mu sàppi ay kéemtaanam du jeex mukk boo ca dégg ba ne lii la dama wax na ko wax naa la kéemtaanu siifuram ya wax naa la kéemtaanu protection yi muy jël wax naa la kéemtaanu bin ak géej gi wax naa la kéemtaanu mala yi xatta furru yeeg yëpp bàyyiwuma la ca dara moo tax ba ko jinne yi déggee rek ñu ne inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi moo tax gis nga ko moom téere bire loolu yëpp imaam Aliyu boo ko jëlee si yonent mu ne wallahi ku ko xam nekk ku ko xam ku xam téere bi euh, euh, ku ko ku ko ku ko waxee wax dëgg wa man qaala bihi sadaqa wa man xakkama bihi adala képp ku ko xatte woo danga nga maandu waaye képp koo xam ne jëfee nga ko ñu yoon la ku xoote jëmee ci téere bi ñu gindi la ci yoon wu jub waaye kon téere boobu laa leen di xoo nañ ko gën a fonk tabaarakallaahu téere boo xam ne ruuxu la ni ruuxu mel ci jëmm noonu na téere bi yàlla bu mel ci suñ jëmm yi jëmm ju ne bu manqué ruuxu dee waaye jëmm ju mën a doon bu manqué téere bi yàlla bi dana toox wa yasalunaka ani ruuxi qul ruuxu min amri rabbi wa maa uutitu min al ilmi illaa qalilan waaye noonu mu waxee ko ci la waxee ne wa kazaalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrinaa ndax tuddee na téere bi ruux min amrinaa ndax maa qul tadrimal kitaab wala al iman kon tuddee na téere bi ruux ni ruux mel ci jëmm ni la téere bi mel ci tabaarakallaahu ci dund ak doomu aadama kenn ku ci nekk war na koo def muy ab doos boo xëyee jël ca dara bala ngaa tëdd jël ca dara waaye tëdd ba ngoon jot nga yeewu jàngoo dara ci alquran sa bis boobu bu ko boole si dund bi bisa pertement la waaye am na ñoo xam ne seen dos bi kafe la am ñoo xam ne seen dos bi ceeyu suba teel la am ñoo xam ne seen dos bi euh, lëwal bu fatt bu tàng waaye nag ka gën a am doos bu baax mooy ki jël alquran def ko muy doosam ndax mooy wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim waaye tamit waaye téere boo xam ne nazala bihi ruuhul amiin ala qalbika nañ topp kon téere boobu bu màgg boobu bu bu bu foor boobu bu bu tedd boobu téere boobu nag laa lay war a dugal tabaarakallaahu ndax yàlla dafa ñu cee may may yu rëy rëy ñun jullit ñi may goo xam ne mënuñ koo fay yàlla mooy ne dafa ñoo xoo buur bu day ni yàlla ku xoo war ngaa békk te ku xoo war ngaa wuy ndax kat kenn ku ne ci ñun am na ñoo xam ne bu ñu laa yow kat président moo la xoo yére ba ko gën a for ngay dem sol ko sottee ko parfo jéem a dem respecté audience ba xam na koo xam ne bu ñu sa sëriñ la xoo bu fa gëmee yàlla loo jàppoon bàyyi nga ko mbaa ñu ne sa bàyyi lay xoo mbaa ñu ne sa yaay lay xoo wala ministre bi nga am ak tey audience loo xamoon da nga ko def ci kontante ak bég kon buur bu day ni yàlla bu ne maa lay xoo yow mu doxadi nii nga xamne ne benn fan boko ko ku la jage nga xassawal ko sa gémmañ gile bo xeyon hend ba ngoon kat soccu ko mu xassal xutt sa bakkan yi la ya nga gis taxay ji nek heure bu nek boko fomput mu kenn du xam loy niru waye gis nga ko timit ya ngi ni ay minute yu nek nga dem ko li nek sa takko ak yow ben nga dem touri ndox ba nga dem touri ay yo xamna ni kenn bëggut ko jégé ku mu jege sax nga fat sa bakkan yi nga boole kook yoré ay taflik yo xamné kenn bëggul mu laal ko nga xamee ay ñandaxit yoo xam ne amul kenn ku la jege bëgg ba sa ñandaxit di ko laal mo xam sa soxna la mbaa muy sa yaay ak taflit ya waxaguma nak lay génn ci yow sa doxma ak yenen ya kon yow mu tilim ni nek ku doxadi ki nek ku xébu ki nek ku ñàkk solo ki nga xamné dara nga am bis bo démé ba nga dé nga rek ala kulli xaal mënatoo dara ñu jël tëral la sang la sa pax yëpp ñu saxañ ca witen balaa la cay génne génne ca tabaarakallaahu ñu takk la yeew la war laa dugal ci am pax door a dem sangu ji door a dem man tamit mën a raxasu waaye ba ngay julli tamit ka la njëkk laal dafa dem raxasu ji kon yaay ki ñaari ndoxu raxasu di siq yow mu xeebu mu doxadi mi nag yow la yàllay xoo ci téeréem bii juróom-ñett fukki yoon ak juróom-ñeent di wax yaa ayyuha allazina amanu loolu xam nga teraanga ju rëy la xéewal gu màgg la ku foor a foor ndax yàlla téeréem bii xam na personne yu mu ci wax yoo xam dafa jaar ci seen jëmm ya mooy invitation dëgg la leen defal yaa aadamu ca la bokk aadama da ko woo jaar ci tur wa yaa aadamu uskun anta wa zawjukal janna tudd na ci yaa noox yaa nooxu ihbi bisra minna wa barakaatin alayka tudd na ibrahim yaa ibrahimu a'rid an haada tudd na Moussa yaa Moussa inni stafaytuka ala naasi bi risalati wa bi kalaami fa xuz maa aataytuka wa kun mina shakirin tudd na Isa ci téere bi ay yoon tuddaloon naa la kenn ku ci nekk li ko bi Isa ibn Maryama tudd na ci Shuayb tudd na Luut tudd na Yunus tudd na tabaarakallaahu fil kifli tudd na Yasaxu tudd na Sayyidina Muhammad juróomi yoon ci téeréem bi su ko defee muy Muhammad yo ca nekk calcul daal boo calculé ñaar fukki yonent ak juróom yàlla tudd leen waaye tudd na ci sax ñoo xam duñu ay yonentu tudd na Luqmaan te dufut ab yonentu tudd na Xadir tamit waaye xisaam ba la indi donte bu tur ñëwut abdan min ibaadinaa rek la ko wax waaye tamit tudd na Maryama te du yonentu mu jigéen yaa Maryam uqnutii li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raaki'iin tudd na nit ku ku tuddee Zaydun falammaa qadaa Zaydun minhaa wataran zawwajnaakahaa waaye tamit nag ñun ñëpp ñun ñii ñëpp yow ñu lay déglu tudd Samba baa nga tudd Demba baa nga tudd Moussa baa nga tudd Mariane noo mën tudd yaa xam dama ne sax yow tamit alquran tudd ma la ne yaay walif rek boo fexeel ba iman nekk ci yow kon bokk nga ci ne yàlla tudd tudd ak lu mbëstal ndax invitation kat ñaar rek la invitation boo xam ne da nga ko wax na ko rek seetal ma ku baax ku ne ku lislaam ñor nga joxal ma ko carte bi ne ko mën a si ak invitation boo xam ne yaa ko adressé wax turu waaja turu dëkk baak fa mu jëm def ko ca enveloppe ba jooya nañ yàlla ñaar fukk ak juróom la ko jagleel ñu ci des ñëpp nag dafa ñoo woo ne ñëw leen ku xam ne melokaanu yi rek bu bugg ci yaay yàlla na amanu te mooy melokaanu imaan yooyu nag laa bëgg a dugg ak yow ci waxtaan yi ñaar mu nekk juróom-ñett fukk xoote tabaarakallaahu ak juróom juróom juróom-ñeent quatre-vingt-neuf yaa ayyuhal lazina aamanu mu nekk ci alquran benn bu ci nekk danaa la ca jaaral la ca yàlla santaane bu fekkee dafay santaane ak lu ca tere ndax ñaar yooyu rekk la yàlla bu la waxee dafa lay sant mbaa mu tere la am na fu la ju day ni doxoo bu mu kuko kum gëm moo yaayu li si na këfaru amu ci alquran yaayu li si na amanu rek ñoo ko gëm rek lay xoo ñoo ko ab santaaneem ko gëm rek lay tere ay tereem waaye ku ko gëmut xamul tam yow lay sant mbaa mu lay tere boo ma toppee nag ci waxtaan yi di ñëw danaa la ko jëlal par benn ba njëkk nam ta suratu baqara ci yaay wa qulu unzurna moo ci njëkk ba ca mujj yaa ayyuhal tuubu ilallaahi tawbatan nasuuhan boobu moo mujj ci yaa ayyuhal lazina aamanu yi diggante ñaari yaa ayyuha yi nag fas naa yéene toppal la ko benn par benn gannaaw bi ma leen lay taayalee ci alquran mu xëpp fukki waxtaan ak juróom yëpp ma jagleel ko alquran léegi nag ci woote yi yàlla xooñu su ko defee nag ñu góorgóorlu ci yàlla yàlla dafa ñu tawfiq ak taysir in uridu ila al islaah ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu inni wasalaamu aleykum